li nga xam ni mën na doon des infiltrés mhm. au niveau de la brigade gendarmerie de manière générale mhm. war nañ ko seet fu sori mën nañ ko seet loolu c'est pas un problème que la presse traite mhm. c'est automatique dès que mu am gendarmerie gis ni am na affaire bi mel noonu dina dem xool kayit biñ ni ci moom la jógee ban la mu seet faneen la c'est pas la peine ñu ciy commenter mais capitaine Touré c'est le révélateur c'est le révélateur du mal qu'il y a dans ce pays yu nekk ci biir armée bi di dem di comploter ñoom de manière effective ak ay nit ñi nga xam ni c'est des subversifs nit ñi nga xam ni lëj lañu bëgg a jote nguur gi dem ci dem ci dem ci ba perte sa liggéey dem ci dem ci bë sol mbubu politicien kooku lu ay ci biir gendarmerie dañ koy seeti y personne ne l'évite que le capitaine Touré s'il est à soupçonner ou à désigner comme coupable Du point de vue du principe, c'est lui le mal. Mhm. C'est lui et ses semblables qui sont, mhm. qui, mal dans cette affaire-là. Mhm. Alors, euh, ñu des ba léegi ci mbir moomu bu ñu xoolee déclaration Ousmane ko déglu ko bu baax mooy dossier bi il est vide daanaka sa du lu bees yàgg na ko wax mais yow it gis nañ la ci plateau yi nga koy accuser directement je cite yàggul dara ce bonhomme est allé coucher avec des femmes dans un lupanar du fi nekk président ndax accusation yaa ngi koy maintien ba léegi. non non c'est kooku c'est lui qui l'a di il est allé au sud buuti ci guddi dawal oto moom côte il a eu des relations vertes avec cette bonne dame mais est-ce que est-ce que wax na ne j'ai des rapports sexuels des rapports avec des femmes comme ni mu ko waxee la fille a dit qu'il a des rapports moi je m'appuie sur des choses qui ne viennent pas de mon invention ndaw si nee na sëy nanu moom nee dem na fa te waru fa dem lu mu fay wuti pourquoi est-ce qu'on tient à tourner tout ça mais c'est c'est c'est méchant sur le dos du Sénégal kenn ki nga xam ni rek kilifa nga fi taxaw nii dama bëgg nekk président ñu lay fekk ci ruq yu lëndëm yooyu ñu bañ naan tëdd na ak moom tëdd ndaw si nee na tëdd na ak moom moom moo ni dem na fa dans la première déclaration que j'ai faite dans cette affaire là j'ai dit ëpp na mu ni dem naa fa man de dama doon yaakaar mu ni dewuma fa. mais au moins ça moom avoué na ko que dem na fa. non du au moins du au moins ça loolu la waroon mm. woon avoué. ça c'est ça qui est grave moi viol ou pas viol c'est mm. ça qui est grave quelqu'un qui veut nous diriger et qui va se promener dans des coins comme ça guddi xaaju guddi dawal sa oto lëndëmtu dans un coin dont la publicité est, est compromettante ay jacuzzi ay jigéen ñu rafet. ay ay nooyal ay affaires humaines noonu et on veut nous simplifier ce truc là il ne mhm. devait pas y aller des gens ont fait moins que ça mhm. et ils ont été disqualifiés éternellement du champ politique mhm. ailleurs mais ñun dañu commencer réer fii ci Sénégal c'est pourquoi même ce débat là est est, est permis ñu mën ko dégg lii benn bis la waroon ji jeex ci benn bis bi. moo tax ma ne kii du fi nekk président. le mystique s'invite également dans ce dossier. le le mystique bari na tey jii nii ñu doon wax ne dossier bi dafa mystique Ousmane Sonko nii nguur gi nii affaire yooyu mais moom ci boppam moo wax ci laam bi ñoom ne bi mu demee ci bureau juge bi le doyen des juges gis na fa mbir yoo xam ne bandage nañ loxo bi fii ay ndox mu tuuri ndax doon nga xaar yu mel noonu ci dossier bi que moi je peux je peux faire mm-hmm. pourquoi est-ce que moi mm-hmm. dans ce que nous disons là mm-hmm. que le fil conducteur soit tous les boniments que Ousmane Sonko nous met sur la table et nous impose d'en Nous, nous devons dire, demoon devons dire que celui qui est notre, qui président, lii la war am comme qualité fu mu sukkandiku. fii mooy Sénégal. di dëkku nit ñu baax. wolof tukulóor séeréer joola manjaak ñu am ay valeur am ay qualité yu dëgër dëgër yi nga xam ne. mais loolu mais loolu moo également ci côté mystique bandage. non non non je ne parle pas de ça. sincèrement n'est pas grave. tous les jours ngeen gis équipe bu nawetaan yi def ay mystique. mais mais ba ci biir des juges ça attendez fii nekkuñ ci match. ba ci biir doyen des situation qui n'a pas pour objet mystique. situation bi nu nekk du affaire mystique moom moo fi indi waxu mystique mënoon na fa dugg ba génn te du wax mystique est-ce gis également c'est son problème c'est son problème naka régler moom mu wax ñu li mu gis lan la et vous l'appelez ici lui devant vous ici au lieu de m'appeler moi qui n'étais pas là di ma ko laaj ngeen woo ko Ousmane Sonko li nga wax ci mystique boobu lan la nan nga ci gis ainsi de suite il faut que ñun ñu génn foofu li ñu war a wax ngir yàlla ak Sénégal ñu wax loo ñu ko mais duñu yóbbu ci magum jëm mu day ni man benn waaye ñu woo ko pour mu régler problème am ak benn femme bi nga xam ne j'ai dit qu'il a couché avec la femme parce que la femme l'a dit et il ne devait pas le faire parce que c'est un candidat à la présidentielle da bugg nekk président ñu ma bugg nag léegi ñu ma fi teg naan ma est-ce que mystique bandage loxo ceci cela ainsi de suite naka régler moom mhm. en tant que presse la le meilleur l'être ici à ma place et de lui dire yow kat bi nga génnee nee nga mystique nangam sangam explique nous par rapport à ça le juge l'avait convoqué pour l'entendre juge bi daf ko woowoon pour déglu ko bind woowu ko pour ñu régler problème mystique déglu na ko bind li mu ci wax ay trois questions soo ma ko laajee commentaire naa ko mhm. mais su fekkee damay dugg nag ay mystique ay détails noonu man magum jëmm laa très bien am na ñoo xam ne également cité nañ leen ci mbir mi ci document boobu nga xam ne nekkoon na en possession de euh, d'Ousmane Sonko ñu ci mel nii Mamour Diallo maître Dior Diagne d' accord nga ni ñooñu tamit war nañ leen woo déglu leen ci mbir mi. mais kooku compétence juge bi la. dama dama wóor ni mais sa avis ci loolu. dama sa avis mooy mooy si mais dama wóor ni. ah avis de principe laa lay jox. mooy ban ñun pour ñu mën a dem. Mhm. il faut pas que l' instruction li nga xam ne mooy liggéey juge bi. ñu koy defee ci biti. te bàyyi fi juge bi. mu def concours nekk juge am expérience ñu nommé ko foofu ñun li ñu gën a sonal mooy ñun ñëpp dañu nangu nekk complice yu ñi ci nasaxal justice bi nasaxal saxal état bi na kër sëriñ si nasaxal mbedd mi pourquoi parce que on veut nous amener à mettre en cause le juge est-ce que juge bi warul mais le juge il est compétent à les convoquer à convoquer n'importe qui même vous qui êtes là mais war ñi nga xam ne est-ce que war na leen man en tant qu'officier tu parles à un officier mhm. l'infraction que les par font mhm. la prétention qu'ils ont mhm. de faire les choses à la place du juge bugg toog sa kër naan sa ataay ba mu neex nga naan juge bi war na def ni warul def lii du ba ci fekk j'ai confiance en ce juge yow gisoo ni juge bi war na leen woo non non du loolu du loolu gis lan lan la exactement dama lay répondre je te dis j'ai confiance en ce juge là xam na ku mu war a entendre ku mu war a convoquer ku mu warul convoquer liggéey bi ba ba muy yéex moom moo koy def keneen du ko def ci biti donc loolu du debaa mhm. ay war na leen convoquer war na leen kon loolu du débat ak ku ci mënti nekk le juge est là mhm. devant le Sénégal devant son serment devant ses responsabilités de juge kenn warul doo final war na convoquer lii lu bees la fi mhm. il faut ñu génn ci piège bi juge buy def liggéeyam ñu naan ko dafa war ku wokki warul ku wokkale dafa war ku wokki xanaa ñun ah, finalement tout se fait dans la rue soo demee Macky Sall dafa war a déplacer bureau yóbbu ko le ministre de l'intérieur ñu yóbbu ko beneen marché Tilène ainsi comme ça on va gouverner le pays dans la rue tribunal ñu yóbbu ko marché Guédiawaye Comme ça, on va gouverner le pays dans la rue. Mm-hmm. Mais je comprends pas qu'on veuille toujours mm-hmm. poser les débats qui ne sont pas essentiels. Et moi, quand je vous dis que mm-hmm. l'un moy li nga ni moy sunu ay valeurs yi nga xam dañ ko war respecter pour que qui du nek président qui du nek président je vous dis parce que au nom de au nom des valeurs que nous avons qui nous gouvernent que nous avons en partage dañ war respecter sunu bop ñun fi mu nek ba ci suuf di bërëngu di dugg ci caniveau yi di génn pourquoi parce que de manière on sa permet cette discussion la En France, quand euh, Dominique Strauss-Kahn mmh. a eu ce mal-là, il n'a pas attendu. D'autres, pour moins que ça, n'ont pas attendu. Mmh. Des premiers ministres ont dé démissionné qui nous ken fekewul. Nous ak sen secrétaire nous lamboko sen sen sen benen ko muy ñetti nit ñu génn démissionné. Mais où on en est ñun ci réewu teranga bi, réew bu baax bii réew nit ñu baax ñii réew mag ñu baax ñi, réew borom jikko yu baax yii Nous, on banalise tout ça et on, se, on permet de dire à quelqu'un, oui, si le juge ne le condamne pas, il va devenir président. Madame Guinée, En tant